tey nag dañoo jógee lii kay dugg bu biir Thiès xottiwaat tali bi dugg Morolan ñëw seet benn boy bi ñuy wax Double MT mu ngi si benn projet bu nga xamante ne nag du ma leen wax mais boo leen dem bu demee tey da ngeen xam comme mooy Double MT quoi sama gars yi boo leen paree rek let's go. génn dii kay dugg Thiès xam nga xottaat tali bi tuuti xam nga dugg biir Morolan fekk fi benn boy boo xam ne jeune talent comme la wax rek style underground mooy tey dañuy dem seet boy yi nga xam ne nekk ñu ci main street bi amaana grand xamu leen. mais ñun tey dañuy jël suñu lépp dugg dem génne leen pour grand public mun leen xam quoi te tey nag ñu ngi fii Morolan ah xam nga di seet si benn la gayaan benn booy sax laay wax mun lu muy def booy xam naa nag gars yi xamaguñ ko mais waaw ak émission bi gars yi danañ xam mooy kan quoi. Euh, underground style la ñuy wax du ñu dem seet ñi nga xam ne dañoo siiw mais am na ñoo am te ñu ñu ngi si si baa bi quoi ñu ngi dañuy def dañ ko mun carrément. Euh, tey public bi tey soxla tey ñu xam leen quoi ñun ci loolu ñuy gën a di yëngu maanaam dañ gis booy xam ne underground lañu nekk ñu jëm leen poussé à ce que ñu mun a persévérer ba gars yi mun leen xam quoi waaw tey Double MT tey bon ñu la xamul quoi maanaam euh, tey man xam naa Double MT quoi mais tey su ma bëggoon xam sa biographie maanaam kam may Double MT ñu juddoo jaar-jaaram waaw ba tey nii ak nii quoi yokkal bëggoon xam tey nag naka tey nañ tey naka tey ni ñu koy résumé quoi maanaam biographie Double MT WMG nekkul loo xamante ni mun na mun na nekk na loo xamante ni mun na jaaxal ñeneen ñoo xamante ne xamuñu WMG mais WMG ñi nga xamante ni yoroon na xam nga yaru yaru nekk nañ si diwaanu diwaanu Morla ñu ñu yaroo ak moom si biir Morla tamit xam nga ñoom umpale wu ñu xam nga WMG lu mu doon lu mu doon joobee biir Morla tey tey di yàlla def xam nga ma génn génn naa génn naa fil ay génn yu bëri génn sama orside muy muy muy Morla génn dem ay Deka génn dem Ndar xam nga génn naa def loo xamante ni mooy loolu noonu si si si si mais tey tey jii yàlla def na loo xamante ni mu ngi nelaw si man yàlla def na loo xamante ni nelawoon na si man mais daf daf koy si man quoi mu nekk loo xamante ni ñu koy ñu sant yàlla bu baax baax te ñu ngi siy gis njëriñ aussi tamit xam nga. waaw man de foofu laa jaaree gars dina ne waaw mais la may Double MT quoi Double MT lan la benn tur américain la wala lu mu demee noonu quoi. Double MT. maanaam du du du tur américain nekkul tur ba nga xamante ne tur tur boo xam tur bu xóot la wala tur daa am ci benn benn mambay la quoi turam gën ko xam daal ci mambay quoi mambay combaan ñaari am yi mooy mambay tey bi soo ko jëlee mu firil la xam nga tey tey bi soo ko jëlee mu firil la combaan quoi ñu jël ko xam nga daga dagay ko xam nga dóor ko mambay daal di am ci quoi dëgg dëgg dëgg waaw waaw waaw waaw affaire moom lu mu defaa da ciy nekk quoi defaa day xam artiste artiste dëgg sax fa leen ngay xamee quoi maanaam sa tur foog nga jeu ay mots la quoi ay jeu de mots ngay utiliser pour tey nga mun a jaaxal public bi koi te eh, waaw kon ba ñuy dugg si waxtaan bi maanaam bon lu la inspiré sur rap quoi lan lan maanaam lan la la la moo tax tey ngay rap quoi maanaam mun naa wax ni sama carrière yàggul sax ndaxte maa ngi am 21 ans sama carrière yàggul mais def naa façon foofu nekk képp képp ku foonoo ak Dame Lim xam nga Dame Lim mooy kan façon jaar-jaar bu ne jaar naa ci xam nga mais tey lii la yàlla dogal man mu mujjee si game bi xam nga te maa ngi ñaan yàlla aussi tamit game bi ma def li nga xamante mooy mooy li nga xam mooy moo nekk sama xol quoi mu nekk lu gën si man quoi di wax rek waaw Dame Lim ci newul loo xamante ni waaw maanaam rap rab mun naa wax ni dafa am benn benn benn benn time rek waaw mu dikkal ma quoi loolu dafa demee quoi waaw mais pour pourquoi rab quoi loo ma tax demoo def mbalax xam nga ak lu xew temps yi quoi xam nga ci net bi gis nga temps da ngay génne sa wér sax gars yi jël ko formaté xam nga ki koy jël sax yow moo lay ëpp bës quoi la moo tax duggoo ci foofu pourquoi rab lan la quoi lan moo nekk si ba yow ba nga ne ma rab laay def quoi pourquoi pas demoo def mbalax. yeah rab mun naa wax ne rab dafa nekk lu nga de lu ma neex la quoi parce que mun naa am wax ne sax diwaa mu si duggee tamit yàggul yeah waaye mun naa wax ne tamit lu ma neex la xam. parce que maa ngi si maa maa ngi si yee sama bopp di si yee yéen nit xam nga ndax euh, ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi liggéey liggéey boo xamante ni gëm nañ xam nga li ñuy liggéey nii ko caaxaan wala ay def ay xam nga di fekk di def leen loo rab moom dafa nekk loo xamante ni wax yi kàddu yi soo ko tegee si yoon rek mën nañu wax ni kàddu yi kàddu yu defar la kàddu yu jubal la quoi loolu moom mooy instant bi dugg si rab quoi mais nekkul xam nga musique dama jógee xam nga def am ak waaw dëgg dëgg parce que gars yi dañ koy wax ah, ñu ne rappeurs yi bon ñoom ñoo yore kaddu kaddu bi quoi si ñoom la gën a nekk dangay gis ah, dara bu xewee sax dañuy laaj ana rappeurs yi quoi yee waaw rap moom mooy loolu quoi waaw léegi man dama bëggoon a xam léegi mona la yow sa ambition si rap dugg nga si rap quoi mais est-ce que maîtriser nga game bi carrément quoi est-ce que maîtriser sa ambition lan la ko waaw game bi mun naa la wax ni maîtriser gum ko comme ni nga xam ni nga yenn nuyu suuf yi maîtriser maîtriser quoi. ak yenn underground yi xam si yaa comprendre parce que man benn underground laa waaw nekk si suuf xam nga diwaan Morolan xam nga di jot waaw di représenter pour Morolan quoi di représenter pour Morolan loolu moo tax a xam nga nekk di représenter pour Morolan xam liggéey loo xamante ni ëllëg waaw dinañ wax ni Double MT lii la fi liggéeyul quoi mais nga nekk xam nga liggéey loo xamante ni nit ñi kenn du si teg seen bët tamit xam nga loolu noonu moom loolu moom dugal si kenn quoi waaw bon Morolan Morolan Mor mais Morolan est ce que bëri na ay rapport quoi Morolan est ce que bëri na ay rapport mel ni dafa mel ni Sadio dafa wiir quoi yee mën nga wax ni Morolan bëriwul rapport c' est parce que xam nga rap dafa nekk loo xamante ni xam nga dafa dafa dafa difficile quoi pour nga def ko xam nga tamit xam nga yàlla dalay may dalay may benn esprit boo xamante ni pour ngay doxee pour nga koy doxee du du nekk lu lu yomb quoi te noonu la fa demee quoi waaye mais Morolan nag bëri na ay rappeurs bëri na ay rappeurs mais ay underground lañ tamit mais am na si ay quelques xamul ni ñoo xamante ni nit ñi xamee nañ xamee nañ leen quoi te ñu ngi ñaan yàlla it aussi tamit xam nga ñooñu ñoo xam ne tamit teg seen tànk xam nga fa nga xamante ni moom la ñu wax si waaw moom moom la teg seen tànk si wàllu rap quoi yàlla yàlla dimbali yàlla dimbali leen si bu baax a baax quoi. waaw ok dëgg la bon xam nga tamit bon dañu ne boo nekkee tey si si gox jeunes yi bu ñu jëngatoo. bon bu ñu bëggee euh, dëkk bi dem souvent dañuy gën a dugg si rab bi quoi parce que mooy la voix des sans sans voix quoi maanaam da ngay jottali kàddu askan ñoo xam ne gis gisuñu leen quoi yaay doon seen kàddu dëgg la mais yow bon yow sa relation ak rappeurs yi nekk fii quoi bon est que courant bi day nice wala dafa am courant bi nice quoi loolu laa bëgg xam quoi yokk sa maam relation fii rappeurs yi ak yow mais yaa pour bi xam man tamit ba ma duggee rap quoi ma si game bi yàggul xëy na tamit maa ngi liggéey loo xamante ni tamit pour nit ñi xam ma quoi pour rappeurs yi tamit xam kan mooy Dable MC mais ba tey jii nag feeñal ma sama bopp ni carrément kii mooy Dable MC mais am na yu bëri yu nga xamante ni ñu ngi koy waajal pour génne ko pour yeneen rappeurs yi nga xamante ni tamit ñoom ñu ngi nekk si biir gox bi pour ñu mun a xamante mais mun naa la wax ni wax fa dëgg fa neex yàlla moom ñun moom xamante ni quoi xamanteeguñu nag waaw kon bon su ma déggee kon bon xanaa kon xanaa kon fii amul structure quoi maanaam comme ni ñuy déggee ci hip hop boo demee géej waay rappeurs yi foofu la yow booloo dem nga dem MC yi Wakaam dañoo am seen benn salle de spectacle bu ñu xanaa fii amu a liggéey la quoi parce que xam nga moom xam nga dañu koy jàppale rek artiste moom soo nekkee artiste sa chaque pour sa gox quoi pour mu nekk lu nga xam ne lu nice la quoi mais gëm naa loolu moom xam nga su nekkante tant que moom yàlla moom mu may may xam nga sama nafsu rek xam nga si liggéey quoi gëm naa ne moom Mont Rolland moom bëgg naa ko yóbbu foo xamante ne parce que loolu sama gëm-gëm la tamit ku si nekk day wax gëm-gëm man sama gëm-gëm la. man nit nit bu nekk si li ngay dugg da demee gëm-gëm quoi boo ko gëmulee rek bon mun naa la wax di nga dem nii rek pour dem mais après euh, balaa ngaa yegg dina cete quoi ah, waaw day cete waaw waaw léegi kon balaa ñuy gën a xuus si waxtaan man gars yi sa gars yi mu demee noonu ñii ñii waa Morolan ou bien wala si type li ñu bokk ñu demee noonu yee ñii comme ni mu ko waaw comme comme comme comme ni mu ko waxee woon sànq rek ñii ñooy samay samay copain ñëpp fii nii si saay bi si si bi ngay gis ñii ñii samay grand lañ yenn ñi samay grand ñeneen samay samay raxal kon ñii nii tey xam nga kon su ma su ma jógee ñun dañoo war a xam ne seen seen doom seen dret mooy jóg dafa leer waaw waaw waaw sama gars yi affaire yi wax naa ne moom xam nga mooy neex mais parce que xam nga xam nga man daaw dem bii. waaw xamaa ne man fii quoi. xam nga yow diggee li ñu tase. ci ay waaw ci musique quoi voilà la xamee. mais est ce que tey benn affaire am na est ce que est ce que gars yi ngay toog est ce que xam nañ carrément ma la naa wax ne tamit xam nga nit ko nga xam ne dund nga ak moom ay plus de dix ans xam nga ay dix xam nga ñëw ne mun ñëw mun ñëw umpale dara yow quoi parce que ñii nii moom ñu ma ñu ma ñu ma xam lañu kon moom loolu moom xam nga mun naa mun naa see mun naa see teg sama taa xam ne ñun ñi ñu ma xam ne quoi comme yow ni ma ki nit ki doomu aadama doomu xam nga ak si fànn bi ngay xamee quoi mais gëm naa ñii ne am na boor boor boo xamante ne ñoom xam nañ ma si bu baax waaye yow mi tamit yow tamit aussi tamit xam ma si bu baax tamit loolu yow laay aduna moom a tëddee quoi waaw euh, gis ñu ñu ngi koy defee da ngay abonné Senclic di nga am lépp en ah, page bi YouTube ngay dugg def senclic.com nga abonné ko di am lépp quoi live en direct quoi yee ñu ngi si style on the ground ba léegi xam nga ak ma meen euh, double MT waaw double MT euh, parce que ay genn yi dafa am nu muy mu bëggoon xam yow yow da nga topp tendance wala bon da ngay def rap boo xam ne ne dafa conscient wala yow rab rab bu neex bi comme gars yi ngay defee quoi na neex na jax quoi wala yow da ngay da ngay dugg si société bi gars yi xam la ñuy dund nga jotal ko euh, maanaam ñi nga xam ne ne xamuñu ko quoi yow si ban si ban domaine gars ngay gën a yëngu quoi maanaam man daal rab laay def quoi rab laay def mais tàndaaf moom xam nga mooy loolu quoi ak si moom gëm naa ne moom waroon na demee tàndaaf quoi parce que man moom xam nga li ëpp samay taxi sax soo dégloo samay sax xam ni damay yetu quoi damay teg ay textes yoo xamante textes yu yu yee askan bi la xam ne noonu laay joobee quoi joobee mooy nga xamante ne mooy doon job bu sàggal lay doon wala leneen parce moom xam ne nekkul sax lu may rafetlu quoi parce man sama rap rap suñ ko waxee rap rap rap hip hop dëgg xam wax wax dëgg lañ lañ lañ sàkku si yow quoi pour ñu lay gett pour xam rek ñu lay gett quoi pour ëllëg tamit moo tax ñuy wax quoi mais nga wax fi loo xamante ni tendance tamit ëllëg tamit ñu la koy xoolee tamit xam naa gëm moom loolu mu amul benn njëriñ waaw mais bon parce que tamit dañuy wax ne dëgg ah gars dañuy ne voilà rab bu dëgg bi fayatul quoi rab bu nooy bi moo fay def sa maam nga jaay sa image dem si piscine jàmbur luwee ko def fa sa clip gars ngi ñu ne waaw waajaa ngi nii quoi est ce que suba suba mën nañu xaar benn benn double maanaam tey euh, ñu xaar ko si clip yi ak ay sóor yi voilà. waaw nit ki tamit xam nga mënoo basé ci li nga xamante ne xam nga ci li ngay def quoi. doomu aadama bu si nekk da nga am nit ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw sa staff su boobaa ñoom rek ñoom ñoo décidé si loolu ñoom quoi te su waaw su ko jaree tamit su nekkante ne ñoom tamit ñun gisoon nañ gisoon nañ si tamit xam nga mënu ko jot mais en tant que waaw classique rap la quoi classique rap la rap tamit rap rap daal nay yeete rek quoi da teg sa ba léegi ba léegi ba léegi ñu ngi si underground style waaw des fois nag dañuy ne souvent léegi jeunes yi dañoo boolootul quoi jeunes yi boolootuñ quoi dañuy gis euh, kii day nekk si lii kii nekk si lële mais après du am foo xam ne ne day euh, maanaam benn point moo leen di réunir quoi te xam nga game ku wax game rek day wax mouvement léegi mouvement ku ko wax mooy ensemble personnes yi nga xam ne ñuy toog quoi ma yéen est ce que fii jeunes yi fii est ce que bennoo bi am na quoi est ce que bennoo bi am na carrément bi nga xam ne yow tey loo mënti woote rek bon dañuy gis waa Morolan si ginnaaw quoi. yaa fii moom waaw loolu moom soo ko waaye xam rek waaw am na si tontu tontu boo xamante ni tontu bu bu naaj lay doon pare xam parce que gars yi nga gis nii ñëpp. tey tey mën naa wax ni gars yi ne woo ma ci kenn parce que ñu ngi fi woo sax bëri wuñ en gis nañ nga xam ne daaba indi moo xew rek ñoom ñëpp génn ci aussi a baax ndax affaire dama ko xam ne parce que ñun ñii ñëpp xam nga képp ku siy xewle moom comme li am yeneen saati xam waaw ñu ñu képp képp ku xewle rek waaw ñu jàppale la ak si bépp fànn bépp bépp fànn booy yëngatu quoi man lii laa loolu loolu laa gis sama saa quoi. waaw waaw waaw kon booloo booloo kon mooy mooy mooy mooy bi quoi. waaw léegi bon xam naa gars yi xamuñu ko quoi dem naa studio dem naa sa turu saaw ni quoi dafa leer fekkee naa lépp sa saaw ni yooyu kañ lay génn quoi kañ kañ kañ maam kañ nga koy kañ nga koy bi quoi. waaw sama saaw ni maa ngi liggéey rek de maa ngi liggéey rek daal maa ci ñaan yàlla rek waaw saa si génnee daa xam bu def bu def it quoi mais maa ngi liggéey quoi maa ngi liggéey di wax ni sànq ni xam nga pare ma pour génne ko quoi bis bu bis bu sottee rek incha allah dina baax quoi bis bu sottee dina waaw sànq ni euh, maanaam euh, projet maanaam si projet la la bokk wala sànq ni da nga koy da koy joxe benn par benn wala lu mu demee sànq ni euh, man ma fekkee noonu waa projet la ou bien da ngay da ngay xaar di ko jox gars yi benn par benn ba mu jéem bien eh, sang yi naa wax ne projet la parce que am na am na si yu bëri yu pare quoi am na am na am na si yu bëri yu pare eh, parce que projet laa ko bëgg a def quoi eh, moo tax may jóg xama di di di def képp ko xama yi lu nga xamante mooy li ma waxoon sànq rek su génnee xama gars yi duñ duñ la mun a jëm dara xam dañuy xam ne carrément kii li muy wax ci lay teg dara dëgg lay teg tamit waaw saaw ni du mu si yàgg quoi mais man gën naa saawu nii quoi dóob quoi dóob fa ne sax wax quoi dafa nice tellement que mooy loolu na ko gars xaar quoi ok léegi euh, voilà léegi euh, nu mu tudd sax léegi daam bi ma laaj benn affaire quoi euh, maanaam nu hip hop di demee quoi man nu hip hop di demee maanaam dañuy gis ne benn booy dañ koy ne maanaam dañ koy gëmloo benn affaire quoi ne ko pour nga dem pour nga rente dem dangay ngay jaar si si benn si benn old school quoi maanaam da nga koy soit da nga koy raxasal daalam xam nga fompal ko yaa mu gën a xam quoi pour mu mun dem quoi. est am na am na koo xam ne moo nekk moo nekk si ginnaawam Dabo MD est-ce am na bokk si ku muy coog quoi carrément. bien mën naa wax ne nit ki tamit lépp loo gëm xam na lépp loo gëm rek waaw di si di si liggéey yàlla da siy fekk quoi mais te tamit xam nga waaw mën nga tamit benn. ëllëg ba nga xamante ne dina la dina a jàppale xam nga si say si sa yoon quoi loolu moo xam day nekk lu nga xam ne day rafetal day rafetal sa sa sa yoon quoi. mais waaw Dame MT moom gisuwul benn underground bu nga xamante ne mu ngi koy jàppale quoi tout seul xam nga moom mu ngi faytal boppam quoi mu ngi faytal boppam. bu xotti yoon bi nag mu ngi faytal boppam te gëm naa ne yoon boobu incha allah dama damay yegg loolu moom lu ma gëm la moom. yeah waaw ok ok kon xaaral ñu. passé waa ji ñu xool euh, lu muy témoin si WMT quoi waaw sëñ bi tur bi. Daouda Daouda Daouda Daouda yow lan nga ñu mën a wax si WMT quoi. yeah WMT moom lu leen mën a wax si moom moom dafa bëri tellement que parce que mag moom ñoo koy xareendoo voilà comme ni mu ko waxee sànq su dee 10 ans nekk si dëkk voilà ñu xam ko si jom fulla fayda gëm boppam mun a liggéey fonk ay waajuram fonk ñëpp ay moromam ay magam ak ay rakkam quoi. loolu moo tax su bu mu duggee si rap voilà euh, amuñu benn doute si moom dina réussir mission am quoi parce que si jom lañ ko xamee pour def fayda liggéey jaamu yàlla loolu lañ ko xamee loolu moom da koy moom j'en euh, suis persuadé sur ça parce que loolu moo tax ñu fas yéene ko jàppale yaa ngeen xam nit moom amul lenn lu dul mbokkam lépp loo mën a am rek say mbokk suñ si jiituwul rek voilà day nax saay quoi parce que olof yaay danaan

di si yëngu da ngay fexe nga jege sa sa nit yi parce que ñu ngi leen a mën a pousse pour que nga mën a dem quoi. waaw ok léegi yow sa projet parce que foo ñu taxaw si projet bi ah projet bi lan moo tax mënul génn quoi maanaam lan la moyen moo des wala projet bi parewul maanaam côté direction bu nga ko bëgg a dugal lu mënul dem wala lu mu demee noonu lan moo téye projet bi. yaay maanaam projet bi mën naa wax ni dara téye ko état yi nii quoi parce que projet bi pare na ba pare. jox nañ ko si si anam bu xaw anam bu naaj ñu ànd si xam suñu sax am mais projet bi nag li ko téye nag ñëwul dara loolu la xamal am yenn quelques réglages yoo xam ne moom la ñuy réglé nii quoi loolu kese moo ko téye fu mu nekk quoi mais su nekkante ni wàllu moom moom waaw lépp ok quoi lépp ok. jee waaw lépp ok euh, projet bi am na tur. bien projet bi mu ngi tur triple F quoi triple F. saa yow nga suivre rek ngeen double MT sa projet triple F waaw yow nu mu doyoon ngeen waaw la mooy triple F quoi triple F. waaw yii dañuy teg lu xóotee xam nga yaa ma gën xam quoi triple F mooy fël ma foogeewul. micro bi fël lu foo ma foogeewul maanaam. sama gars yi gars yi. ay double MT triple F. Ah, kon album bi kon la xanaa bu mu dee xanaa 5 kii la nga ne. day def xanaa 5 M la. bu gën a tàng laa indi album. waaw mais ngeen sa projet bi man déglu naa ko quoi franchement parler franchement parler ku la ku la déglu bon day jàpp ni hip hop bi maanaam dafa am fu nga ko nampee wala soit dafa am dafa am bokk fu nga ko fu nga ko doonoo quoi maanaam ci deret la wala. dafa am benn koo xam ne dala mus a jege comme day rab da nga doon ànd ak moom wala loolu quoi parce que man lu ma dégg ci saaw ni xaw ma ndax man man gisuma ko dégg mais lu ma dégg saaw ni voilà foog ñu nga wax ni lan mooy secret bi carrément secret Double MT lan la lan la day diwoo dara wala dafa am lu ñuy sangoo wala lu mu demee noonu maanaam waaw mun naa wax ni moom xam lépp moom dimbal suñu borom la quoi parce que nekkul loo xamante ni dafay dafa dafa doon melaw suñu xam lu nga xamante ni waaye lépp lu nga xamante ni mu ngi koy mu ngi koy ngi koy jëf si kaw àdduna xam mu nekk mun nañu wax ne si direct bi la nekk quoi kon mun naa wax ni kon direct boobu dafa dafa nekkoon sama direct bi nelaw mais tey jii yàlla yéena ko quoi waaw yow relance bi am na ay ay ay rajo yu fi nekk ay site wala wala wala amu am na ay site yu nekk am na ay ay rajo yu fi nekk bëri na ay rajo yu fi nekk na site yu fi nekk bon ñooñu est xam nañu yow da ngay rab wala mos nga leen jox benn single genre pour ñu ñu gaañu si quoi maanaam nga wax leen maa ngi waaw ba ngay sotti Double MT si biir Covid 19 bi la quoi maanaam sama sama sama sama sama sama commencement rab moom yàggul quoi may commencé rab yàggul quoi. si Covid 19 si la si la si la commencé ma génne fi benn single nag mu def fi it quoi booy ndaw yëpp di ko fooyee xam di ko waxtaanee si mbedd bi quoi mu def fi it mais ba tey tey jii nag xam na sama sama projet dama ko téye quoi dama moo tax xam nga joxagum nga kenn xam mais lu jot rek xam nga ñoom quoi. saa yow da ngay waxee nii yéeme naa yow war ko yow sa projet war na mën a génn ko benn sound nga jox gars yi mu nekk it nga dégale projet denc ko quoi. lan la quoi lan maanaam euh, man parce que sa biir la koy wax xaalis moo manqué wala lan moo manqué wala da nga wala soit wala soit dafa am benn rapport bu fi nekk boo xam ne ne da ngay bañ a concurrence ak moom euh, su ma génnee tam bu gis ne tam mu fay lu may def wala liggéey moo des wala lu mu demee noonu parce que projet ku ko yor doo ko dégg da nga koy génnee. bien nekkul nekkul nga xamante ni ragal la wala ba doo xam nekkul da nga ñàkk moyen wala leneen quoi. mais gëm nañ ne xamoon projet bi suñ ko génnee dina fi it quoi kon li tax ñu du ñu denc ko xam nañ ko kon denc suñu ko nga xam suñ ko génnee dina def it ndax man mën naa la wax ni amul kenn ko nga xamante ni waaw mu ngi nekk biir moral la du ma tàgg sama bopp tamit quoi man déglu naa seen son ñun ñëpp donc tant que waaw tant que ñun ñu ngi fi rek waaw ku si nekk dina xam moromam mooy kan quoi parce que man xam naa li may bind xam naa li may bind lan la ko gëm naa li may bind tamit lan la ko saa yu ko tegee tamit ñun dina xam ne carrément kii dafa bind wala bind Eh, waaw waaw waaw dëgg la benn instant nit boo liggéey tamit bu liggéey nga liggéey bu nga xam ne am nga si confiance bon noonu la nekk ngay waxee quoi waaw bon projet parce que xam nga ñun ñëpp ñu ngi si geen bi projet dafa am dafa am ngi koy poussé si marché quoi maanaam comme livre bu soog a judd livre bu soog a judd da koy ngénte maanaam nga koy tudd soo tuddee après nga xool naka livre bi maanaam livre bi euh, cangaay maanaam nga defaral ko quoi maanaam mu bañ a nekk livre boo xamante rek maa nga toppatoo ko boobu ba liir bi di ma mun a raam mun a dox après mun a dem jox soxlaam waaw euh, projet bi est-ce que yaa ngi xalaat yow si direction boobu noonu yaa ngi ciy xalaat noonu nga ko war a liggéey wala projet bi da koy génne joxe ko def concert après yaa ngi wax si beneen projet quoi wala lu mu demee. mais li tax ma téye projet bi tamit xam nga rek comme ni nga waxee rek dafa mel ni liir bi nga xamante ni waaw ñu ngi si ndeyam xam toppatoo ko su génnee xam mu nekk lu nga xamante ni luy njëriñ ñëpp la quoi kon maanaam kon man maa ngi defar sama sama projet pour su génnee xam mu def it doon njëriñ si ñëpp pour maanaam mu bañ a doon njëriñ si man kese quoi képp ko nga xamante ni muy dundal si si si gaal seen quoi mu njëriñ la quoi. ok dëgg la dëgg la. Euh, daa am dafa am dafa xam ne ba léegi waxagoo ma ko de lan ba léegi waxoo ma ko da lu mu demee noonu damay secret bi quoi liggéey bu liggéey bu toll noonu nga koy nga koy nga dën nga rënku ko fenn nga ne bu duggee xanaa sóoraale wala làmmiñ am na wala lu mu demee noonu. man suma ma comprendre projet bi moi bi pont la war a nekk quoi pont la bi nga xam ne day jàllale euh, Morolan bu jógee si si wéet ay rab. niveau rab rab dëkk fi carrément quoi. waaw pont la bi nga xam ne da koy traversé mën na mën na dugal ko fu fu naat quoi boo xam ne ne lépp lépp macha allah quoi. waaw léegi man ba affaire laa bëgg a laaj quoi euh, xam nga tey booy bu ñu commencé rab parce que man booy laa mën a wax quoi du ma wax grand yi booy bu ñu commencé rab dañuy gëmloo benn affaire gars yi damaa métti bon dëkk bi dara neewu fii nii ak nii après dañuy dem ba ci biir bu ñu amee lu ñu am après dootuñu faale waa peuple quoi lu ñu doon xeexal après dootu leen intéressé seen bopp la ñuy nekkal Double MD sa projet moo ngi si studio yaa ngi koy denc déglu naa mais est-ce que Double MD tey bu demee ba am euh, benn euh, benn mu maanaam mu am dara laay mën a wax quoi est que dina continuer combat bi quoi waaw comme ak moom gëm naa ne naa si liggéey moom jusqu'à wàll bu quoi naa ko li naa si liggéey quoi naa si taxaw bu baax a baax quoi parce que tamit xam nga nit tamit xam nga doo tàmbale leen ba pare xam nga waaw nga nga tàmbale ba ba nit ñëpp ne xam nga yow lii nii xam nga yaa ngi yaa ngi si am na yaa ngi yaa ngi yoon quoi loolu moom xam nga rek da da nga da nga war a continuer quoi da continuer gëm xam nga gëm ni xam lépp dina dina ñëw quoi mais tàmbale xam nga ñëpp xam ne saa yi saa yi teg na teg na tàngam teg na si yoon bi quoi gars yi gaa yi tegal la leen rek xam nga daw génn géew non non Dame MTV joole noonu quoi Dame MTV moom xam nga Morolan rek lay waxoon sànq rek li ma fowandoo moom bu a fàtte li ma bii muy Morolan amul kenn comme si fàtte quoi dafa euh, yaa ngi si style underground xam nga tey dañoo dox si ba biir Morolan fekk fekk benn booy bu ñuy wax Dame am na ñoo xam ñu ko xamul. man xam naa ko ma ñoo xam ne xamuñu ko léegi Dable MD ma ngi fi quelques bar quoi maa ngi fi dara quoi loo xam ne daf ñuy maanaam ñu nga xam ne dégluguñu projet bi nga jox leen euh, càq ko quoi nga projet baa ngi ñëw léegi maa fi dara ko <laughs> yaa wala boobu waaw loolu soo waaye moo xam rek waaw day nekk lu yomb si ñun quoi yaa yaa la bëgg yaa rab wow koŋ pis dëgër këcc hip hop bi bu doon jànk man maay jaar si jigi bi wóolu samay lyrics dugal lekk am 10 ak sa crew ñoom ñëpp lay tuddee titre sound maa ngi teg loodul aji tim na ni asamaan weer naaj jant ak vidéo yi xel mu yaatu bari pexe man na kiriku maa teg si gën a efficace chloroquine maay tik yu gën a ñaw ba ñu crocodile sa rappeur ñemewu ma ñi ko corps à corps def ko du teeñu yëpp ko si biir corps bi yaa bu ma laaj fu mu nee moo ngi bàkk yaa bis ni ki tey naa fëllu foo ma fogeewul fët fëtee kullu bit fokkin fekki da woo waaku wax ni ñoo ki dàkk rap lu double M microphone bu doonoon ballon bi amul règle ndax jàgge yi nekk si digg gem ñoo tuur seen mbaax digg clash yu saal saagante ndey fan lañ ko teeg but gis sa nopp fan fan lay mujjee avorté bis ni ki tey naa fëllu foo ma fogeewul fët fëtee kullu bit fokkin fekki fi ñoo di fit na depuis 9 7 ba léegi tempo tempo laaj doxee ba yegg fii gisuma ku may traité daam lu dul maw teew man la fexaw na si digg ger bi yaa ngi pik ak pelka ngi may suul bur si géeju gëm gëm moytu erreur cooki fee xaar man la acteur am technique de guerre mel Hercule fat fàtte sa rappeur aw ma si calcul fokk lay défendre dina enquête sa tout wala Hercule bitch dégg ngeen lu ma dégg quoi. waaw Morlan dégg ngeen lu ma dégg. saa mu ngi si yoon wala nekku ci yoon. yoon. àll yéen la ngeen di xaar si projet bi. mais waxal leen moom. tempo tempo ah. tempo tempo moo tax tempo non dóob waaw eh, waaw xam nga maanaam présence su. Euh, waaw. ok waaw waaw léegi si wax bu bëri quoi parce que xam nga rek lii genre plateforme la bi nga xam ne dañ koy ubbi underground yi souvent ñu ngi tàmm gis télé yi maanaam du ñu kese la quoi maanaam dafa bëri ñu koy def ñoo xam ne gisuñu leen ñu ko mun sax gisuñu leen souvent. ñun bon si si si si si si tàng boobu lañu gën a nekkee maanaam ñu jël suñu yëpp dem seet ñi nga xam ne ne dañoo mën li ñuy def quoi waaw parce que dañu ne euh, futur euh, rappeur game yi ci yéen la quoi kon futur yi da nga ñu teel a gis nga teel leen ràññee quoi bul xaar ñu fël la rek après nga leen foo nekkoon fekkante ne mu ngi doon def ay waaram quoi léegi yow Dable M bi yow sa projet sa projet nga ne doo génnee doo ko génnee gu quoi xaw ma ndax benn rapport moo la fi teg soog xaw ma lu mu demee noonu quoi mais nga doo ko fi génne te lu nga dóor nii sànq lépp doog la yow lan ngay may waa Morolan fii quoi maanaam maanaam euh, su ma ne Moro euh, su ma ne lan nga leen may maanaam te yow rapport nga rapport du du rek si musique te la yem quoi mais maanaam da war a nekk benn activiste bi nga xam ne tey da nga war a regrouper jeunes yi yëpp dëkk bi am na lu mu demee loo xam ne ne tey du mag yi ñoo koy def mais yéen jeunes yi la quoi maanaam en tant que activiste yow est que am nga maanaam arrière pensée boobu est-ce que mu ngi ci yow quoi maanaam être un activiste boo xam ne ne tey da ngay teg fële micro bi ñu dugg si terrain bi maanaam comme su ma su ma ko waxee noonu maanaam euh, quartier bi mu ngi mel exemple ngeen booloo pour setal ko quoi exemple loolu tamit si parce que musique bu ngay def musique mbedd la waaw mbedd bi nu maanaam balaa ngaa dem si balaa ngaa dugg si mbedd di ko defal mais euh, euh, defaral dara mbedd quoi maanaam seetal ko au moins waaw yow loolu laa bëgg xam nga activiste ou bien yow rapport pour rapport sound ba sound la lay gis si koñ bi wala da lay gis yenn activité moom dem naa ne waaw fépp foo xam ne waa Mor laa nekk rek moom muy fa quoi di bay waaram waaw ak lépp quoi fii nii moo xam ne ñun moom ñun ñëpp moo xamoon mbooloo lañu lañu lañu joobe mbooloo mooy mbooloo rek lañuy joobe parce lépp nga xamante ne amul jàppal ma jàpp moo xam ne du mos a dem quoi kenn moom su déggee xam nga initiative xam di def moom xam nga duñu duñu bokk quoi te nit ki tamit xam nga dara tamit xam waaw noonu leen si fekk quoi loolu day nekk acte bu nice quoi daal lépp lu jeunesse bi def quoi muy seen ginnaaw ko moom muy seen waaw waaw loolu moom dëgg la parce que voilà woote bi nii rek boo xoolee ñi teew nii ñëpp waaw wane gëm nañ la quoi moo tax ma ne la est-ce que activiste nga il faut il tamit ngay bokk ci activité yi jeunes yi fii quoi ñu lay gis surtout rappeur nga te en plus yow bon da nga yor micro bi nga xam ne ne tey micro waa Morolan boo si waxee rek dafa mel ni waa Morolan yëpp nga waxal quoi da war a bokk ci activité yëpp parce que man noonu laa noonu si rapport quoi du micro rek ak musique moo lay maanaam moo lay moo tax nga jege sa xarit yi mais à part musique war nga mën a bëy tey sa waar bi nga xam ne tey ku ñëw fii war nañu ne ah rappeur la mais donte ni sax nekk pour rap mais daf mais ñëw na mu def si quoi loolu moom ak mu nice la quoi parce fi toog ñëpp vraiment daawal el bi est-ce que ana staff bi quoi laa bëgg a laaj ana sa ménagère wala ana staff bi ñu bokk si staff bi dafa am benn question bu leen bëgg a posé quoi. daaw dem di mën naa la wax ni waaw amul staff bi Mont Rolland quoi staff boobu mu ngi mu ngi Dakar mu ngi demoon DRDR dafa demee quoi. falaay falaay dundee sa bopp kon nag ba ma duggee ba ma tàmbalee teewal xam nga ndax yàggul. amul a xam kon a nañu wax ne xam daawal bi fëlugul fëlu boo xamante ne wala mun a sax biir moroom biir biir moroom man sama gëm-gëm biir biir moroom gëm-gëm biir dama gëm ni man damay xuus sax te naa teewal moroom laa foog nga xamante ne nit ñi xamuñu xamuñu xamuñu ko woon quoi fa lay xaar fa lay xaar gars yi képp kuy rep képp kuy représenté biir moroom fa laa lay xaar waaw kon bon kon kon staff yi kon euh, kon ñoom ñëpp ñu Dakar quoi ak ménagère bi xanaa pour gën a mën a mën a lire terrain bi. waaw plus nga xam nga tamit pour nga gën a mën a xuus si terrain bi tamit faaw nga am nit ñi nga xamante ne waaw dañuy nekk sa ginnaaw dina dimbali si lépp quoi. te ñooñu noonu tamit dañoo war a nekk nit ñi nga xamante ne nit ñu xam rab la ñu nit ñu xam rab la ñu mun naa wax ni saa bi ma nekkee ci ci ci taw nit ñooñu noonu ñi ma ñi ma ñi ma ay secteur ñëpp xam nañu rab bu baax waaw Congo Congo Congo Congo ba léegi mënuñu xaar euh, projet yi bon léegi concert bi kañ la léegi. yaa concert bi mun naa wax ni tamit loolu yëpp xam nga loolu loo xamante ne lu ñuy xaar la quoi lu muy nëbb la tamit aussi tamit. mbiru concert moom lu may nëbëri di wax parce que génneegu ma génneegu ma génneegu ma sama sama sama sama. sa projet quoi sama projet quoi génne ko ma xaar xam projet bi génn ba pare mooy lan mooy bon waaw bon mun na nekk mais tey boo ko mënoon benn saay ba tey xam ne tey maanaam da ngay invité sa mbokk rappeur yëpp xam nga pour que maanaam saay boobu tey danañu day def union bi si yéen xam ne da ngeen jàpp jàppalante quoi man man côté boobu laay ëppee lu ma wax mais pas concert. nga teg ko parce que dara génnewu déedéet kenn du teg projet parce que génnewu dara mais nga teg saay fa saay fa météo da teg sa barrière même si si ku ñëw mën a wane sa différence style quoi yeah loolu yëpp liggéey la parce que ñu ngi si kawam si bay suñu waar nga def loolu tamit xam nga da war a am benn xar kanam ma nga bay bay woon rappeur ba mun leen indi si boobu noonu te incha allah man gëm naa ne game boobu naa naa si indi parce que boobaa saa yi ngay wax ne ñëpp naa leen naa ko naa ko teg biir biir biir yoon bi quoi parce que boobaa tamit saa boobu noonu li may takk man dama siy bokk tamit bokk saa bi ñu ngi am waaw ok bon daaw la am di souvent dafa am boo yoo xam ne dañuy rab di ko booleeg dara quoi rab rek la ñuy def rab rab rek rab rab rab kese la ñuy def quoi léegi man dama boo xam yow rab ak lan ngay def quoi. man mun naa wax ne nag pour le pour le moment nag rab rek laay def quoi bu si nekk nag xam nga sa sa sa sa étape nga xam ne mun nañu mun nañu dugal si leneen xam nga indil la indil la leneen loo nga xamante ne xam nga ñu ñu xamal la ni carrément que lii mun nga ko kon il faut nga il faut il faut nga def kon su boobaa day man damay appuyer rek xam ni man tamit man mun war naa ko mun a def man mu ne woon rab kese man xam naa loolu noonu mais il faut ma wane sama xar kanam si rab ba bàyyi ba nit ñëpp xam ni boobu teewoon na rab teewoon na rab mais nekkul ni moom rab bi kese laa mu ne quoi waaw ok maanaam fu may waxee mooy métier bi quoi maanaam ci rab rek nga nekk wala dafa am leneen lu ngay defar wala yow rek ngay def quoi. yaa ma ngay wax samay sànq bu baax fii nga xam ne gën a gudd foo ma ñëwaat si gars yi maa ngi wax double MT fop daal di business dégg nga double MT fop daal di business ñaari business laay def muy rab ak. ak peintre quoi liggéey ak ay ay ay art quoi daal aussi foog daal léegi que tey côté parce que tey léegi corona daal sànq bu ñu doon ñëw maag saa maag sama caméraman bi ñu doon déggee kaay dafa bëri quoi ñoo leen filmé gis gisuñu gars yi sol masque quoi lu wala fii corona yegg si bul wala lu mu demee noonu man sax dama takkoon masque bi ba mu gisee solale masque ma dem ma tekki sama masque quoi man saa yoo tekki suñu masque yeah waaw gars yi mën nañu wax ne de xam nga gars yi instant yii ñu bëri tam xam nga découragé nañu quoi ci mbir yi moom jarul bàyyi loxo xam jarul jarul loxo quoi na gars yi xam nga topp xam nga loolu mooy li nga xam moo gën si ñun tamit xam nga loolu mooy loolu mooy loolu mooy li gën suñu war wér yaram quoi ñu góorgóorlu si bu baax xam nga ñu takk masque yi quoi di topp ndigle xam nga di di raxasoo saabu jël xam nga di topp si bu baax a baax président yi tamit xam nga wér yaram moom kenn mënu kaa jënd quoi te kenn xamul dëggam yi aussi tamit yee waaw bon corona daal mu ngi noonu quoi ni ko gars déggee ñu ak ni ñu noonu chaque jour day gis chiffre yi day explosé rek waaw nii nii yaa ma gën a xam quoi du mu si bëgg sax dugg parce que mooy loolu quoi mais daal na ñëpp na gars yi respecté mesures yi distance boobu nag man def naa xam nga gars yi bi mu moo tax dafa mel ni nag. moo tax gars yi mooy euh, suñu ñëw bi parce que yaay suñu premier numéro émission quoi. léegi naka gisee émission bi bi nga xam ne ne Star Underground la may booy nga xam ne ne amuñu fi ñuy waxee parce que souvent lu am fi si génn xam nañ ko tey boo génnee sa projet dem si euh, benn liggéey boo xam ne ne euh, ñu mag lay teg. boo ñëwee da lay xaalis pour euh, rotation forte cinquante mille ngay joxe wala cent mille bu la koy dawal une semaine quoi mais ñun dañuy xeex loolu quoi dañuy xeex euh, maanaam marginalisé maanaam ni ñuy ko ci ñu dañu ne dañu koy xeex ñu dañuy gis sa temps confirmé ñu ñëw waxtaan ak yow ñu la mooy sa ambition nan nga gisee suñu émission bi waaw di rafetlu seen émission bu baax a baax di wax xam nga dangeen def initiative bu nice parce que génne le grand nga xam nga pour nit ñi xàmmee leen tamit ñoom ñu xam nga lu nice la quoi lu nice la quoi parce que fekk ay news yu nga xamante ni feeñ nañ ba pare nga toppat si ñoom dinañ indi émission bi le grand tamit bu neex la nga xamante bu neex la nga xamante lu neex la quoi news nga xam ne dafa succès bi nga xamante ne xam nga ñoom le grand nekk suuf nga fasal leen ba ñu ba ñu jóg gaay gaay ràññee te na naa ne jàmm ñu nekk ñu nekk nekk ci suuf am na si nga ne soo leen jëloon ñoo gën a tàng ñu nekk ci kaw dafa amul ñu leen jàppale ko dañ a a baax waa seen suñu di ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ne mooy fay tamit mu fay leen yóbbu leen fa nga xamante ne beneen level lay doon kontaan si yéen bu baax a baax kontaan kontaan ñuy waa Morolan ñëpp waaw dina ne moom dëkk bu neex la quoi dëkk bu cool nice quoi xam nga waaw boo mënoon lay bi nice quoi ngelaw bi voilà. waaw di wax ay xam nga recherche côté si seen clip maanaam boo bëggee am une euh, émission euh, maanaam émission underground style quoi dina chaque un mois lay am tey underground bi nga xam ne tey dana am événement. si waaw style underground maanaam euh, plateforme bi nga xam ne ko tijjil ko booy underground yi képp ku si mën a am événement lépp loo mën a xam tey maanaam euh, ñun pare nañ pour euh, accompagner la quoi maanaam numéro bi a daw si écran bi jël ko nga kóol ñu xam nga bu baaxee rek ñu ñëw si la def comme ni ñu def ak Double MT quoi yeah ba beneen beneen yoon xam nga beneen underground bu bees xama yaa ma gën a xam xam may de li ma mën a seede ci moom mooy ni ba muy nekk gune moom léjoon na lool sax ba jaaxal ma papa ndax doom itam boo ko juree war nga koo sàmm sàmm bu baax ma jàppa ji baay ji jàppa ji ma jàppa ji baay fekk ñoo ngi soog a jóge Dakar ñëw fi léegi ñu transfert fii ñuy jànge fii nii école Labbe Notre-Dame mu nekk nekk fa nekk fa ba yëf yi avancé wul après ñu yóbbu leen école Ndiaye boobu ba continué fa ay étudiant ba mu yegg CM1 après papa ne ma mbay mi daal dama ko bëgg a yóbbu daal metti woon ma lool nag ma ne ko man daal nangu ma mbay dem daal mbay ni ma yaay damay dem daal moom mu nekkoon ku am fit sax ci xale man ma yaay damay dem daal man ne ko mbay bul dem daal daal defa metti toogal bi ci sama wet maak moom ci xëccoo bi ak papa ji ba ñu kii ma après ñu yóbbu ko ndar mu nekk ndar di fa jàng ba ko ko fii bañ ko indee fii itam ñu faj bët yi mu nekk euh, normal lekk fekk moom âgé na léegi papa ji ne ma comme moom âgé na day toog fii mu nekkaat fi yore sareet di dawal xam nga dafa foogoon mbaam mu nekkoon ci sareetu mbaam bi nekk ci sareetu mbaam bi ba mu am njëgu fas nekkaat ci sereetu fas bi sereetu fas bi papa ji wutal ko tooru maréchal mu nekkaat ci maréchal bi ba ne man daal papa dama bëgg a dem métti wuti métti papa ji ne ko xale toujours lu mu bëgg danga ko ciy fekk si rek su ma sañoon mbay day jàng comme ay doomi ndeyam comme ni ma yoree ñi ci kër gi en même temps moom bi mu fi nekkee da jàng école français boole ko alxuraan bi sama waa kër yëpp léegi nag ba mu demee Dakar ñu teg ko loxol nijaayam Matar mu fay liggéey métier man de pour man sax mbay mi ngi ci métier mooy métier peinture léegi daaw mu ñëw fi ma gis ko ak ay rab muy rab di rab di rab noonu ci biir néeg bi rek ba ren ji bi mu ñëwee mun ma yaay barki dem sax mun ma yaay damay am ay gan man ko ganu lan man ma waa télévision xaw ma fan ñoo fi ñëw géew ko woon sax ma ree nii rek dem bu toppoon ma yaay damay am ay gan man ko may dangay am ay gan mun ma waa léegi ba mu waxee dafay am ay gan ba ci tey ci suba mun ma yaay gan yaa ngi ñëw ma doo nga xam ne kii nag li mu wax déggu na ci moom léegi ñu leen di teeru ba ngeen agsi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax kër gi kërub la ñun ay affaire rab nii sax xamuñu ma ne papa ji man de rab yii lan mooy rab sax papa ji ne ma ah rab la day yeete rek ndax luy yeete rek la ndax rab mën naa wax ne boo ko dégloo sax lu bëri dalay dalay yee léegi ba keroog benn tantam bii mooy tantam bii nii toog mun ma faatu yaa ngi déglu mbay man ah mbay di dégluwu ma mun a pourtant mbay yi muy wax tegu na ci temps bi man ko ah ba léegi sax man dégluwu ma ba nii bi ngeen fi accès ma xam ne kii li muy wax ni kon déggu na ci moom kon lu toll ni télévision jóge Dakar di waaxu si di waaxu ba ak si fii Morolan loolu lu rëy la ci ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant yoon bii mu téye nii yal na ko ci yàlla jàppale su fekkente ne yee doomu aadama rek moo tax mu jóg yal na ko ci yàlla jàppale ndax ba ma toogee ci penc ma sànq déglu la mu wax xam naa la mu wax yëpp boo ko dégloo nga xam ne kii la muy wax sori na ci xolam te la muy wax itam ku koy misaal déglu ko lu lu lu yeetale ci àdduna yéen ñi it yal na leen yàlla fay papam maa ngi koy gërëm di ko san ndax ay doomam yëpp bu ñu sañoon dañuy mokkal alxuraan alxuraan rek la jëm mbay mi mën na ci wàllu alxuraan bi mën na ci wàllu français bi mais xëy na yoon bii mu jël itam yàlla ko ci woo mais bu fekkoonte ne yoon boo xamante ne baaxul ñun duñ ko ci jàppale yal na leen yàlla fay yàlla mi am fay yal na yàlla fay jërëjëf waaleykum salaam fay nañ même na combaan laa ci koy ñaanal yaay ndax ab xal bu ndaw ku karawam ñu si kaw suuf toujours ñaanal yaay ndax borom karaw bu ñu dara weesu ko li yaayam wax rek mu nekk nga xale moom wax dëgg yàlla moom ci woon na waaye bu nekkee moom macha allah yoon bi mu jël kër gi moom këru diine la

dara li li nga li nga dund motu la kon li nga def si kanam moo gën a bari yàlla li nga li nga weesu li nga fi nga jëm moo mu gën ko am solo mu gën koo am asalaamaaleykum mbay de wax dëgg yàlla moom mu taxee mbay ma jox ndax moo ci bu mat sëkk di def waaw sama xarit la sama lépp la sama doomu ndey sama lépp la waaw mbay dem sama xaritu doom lañ na sama xaritu yaay sama xaritam dama gis bu baax si moom moom téye kon léegi daal yor na ma ci sama lépp lu mu sumb yàq mbay daal mu dama ko yëngal mbay daal yaa xam loo bëgg yàlla lu ko yàlla yaay doo gis mbay ma xale ñi ñëw nañ ci laa jógee notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf ndax mbay day mu bàyyeekuwaat Dakar ñëw fii ndax papam xamoon lu dul bay mu ñëw bayalaat papam ay toolam yëpp ñagaat toolu yëpp mu soog a dee kon loolu yomb ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant dañ koy ñaanal rek ñu koy bàyyi yàlla yàlla mi xam ni gën yàlla def fii gën ci moom ndax xel day fàttu moo tax dama jëlaat micro